ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci weeru mag bi ñu nekk rawatina ci fan yi ñu nekk muy fan yi ci digg bi te suñu boroom digee ci njëggal yàlla nañu suñu boroom maase jéggal di sant bu baax ci topp gi ngeen di topp jataay yi nga xam ne moom la daairatu muxaddamatul xidma di amal ci weeru koor gi ngir di ko wettilente ak mbokki jullit yi di ci jàngat ay bind yu jëm ci wàllu xam-xam waaye itam lu ñuy defare suñu din àddina suñu jotaayu tey bi nag niñ leen ko digge woon di fukkeelu fan bi ak benn ñu war waxtaane tomb bu am solo muy warteefu ku dëkkee ci réew mi ngir tànn njiitam maanaam responsabilité bi citoyen bi am ci tànn njiitam tomb boobu lañ fas yéene waxtaane tey yaakaar naa tomb bu am solo la boo xam ne ci jamono yi ñu toll képp ku jullit wala nga di citoyen sax bu dëkk ci réew mi soxla nga xam sa taxawaay ci tànn sa njiit tom boobu nag ki ñu ko war a defal mooy kii ci suñu càmmooñ ñu koy wax Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul sëriñ Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud jàngalekat la gëstukat la bokk ci kuréel googu nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci wàllu xam-xam ci dëkk bi ñu koy wax daairatu rawdu rayaxiin mu doon ci itam membre bu actif koo xam ne ay yëngoom yépp ci tasaare lislaam ak njàngaleem sëriñ bi la yaakaar naa ne ku miin jataay yi wala jataay xam-xam yi am ci yoonu murit danga ràññee bu baax a baax jëmmam tomb boobu nag moom lañ ko fas yéenee jox ñu waxtaane ko xam naa li ñu xaw a ñàkk ci waxtu li ñu rëcc ci waxtu wi dafa xaw a bari te tomb bi am solo lool ñuy ñaan rekk mbokk yépp teewlu ko dégloo ko xel te fas yéene jaruñu ci li nga xam ne moom la ñu fas yéene indil kon duñ def lu dul jébbal ko kàddu gi rek ñu sóobu ci waxtaan wi sëriñ Cheikhouna bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi noo ngi nuyu bokki fi teew yépp di siyaare ñépp di nuyu ak siyaare itam képp ku sunu kàddu di àgg ci moom waxtaan wi kon ni ko sëñ Abdullah waxe rek day jëm ci waru garu ki dëkk cim réew wala cib dëkk ci tànn njiitam ndax citoyen ki dëkk cib dëkk citoyen dëkk ba la ki dëkk cim réew citoyen réew ma la fim ne nag dana tollu ci war a tànn kiy jiite réew mi ci Sénégal kuy waxtaane loolu nag dana tàmbalee waxtaane jëmi politik ci boppam ndax ñu baree bari jàppewuñ politik lu ñu war a waxtaane ci ay jumaa ki jàkk ak yu mel noonu fii nag yàgg nañ ko fee waxtaane moom kon dañuy tàmbalee wax lan mooy politique ci boppam ba xam day lu aay walla loolu buñ ko bëggee xamit dañuy tàmbalee ci li yàlla wax ne moo tax mu bind moo tax mu sàkk nit ak junne moom yàlla moo wax ne nit ak jinne li tax mu sàkk leen mooy ñu jaamu ko rekk wa ma xalaqatul jinna wal insa illa bu yabudun kon loolu la yàlla wax ne moo tax mu sàkk nit ak jinne jaamu ko nag mooy lan jaamu ko mooy rek di def lum bëgg di def lam bëgg kon mooy lépp lu nit di def te defe ko na ko yàlla bëggee rek loola jaamu yàlla la topp yàlla la jaamu ku may topp ko te topp ko kon mooy lépp looy def rek defe ko na mu ko bëggee loolu mooy jàmm yàlla kon di lu yaatu am na lu nit ñi gën a miin lu xat lu ñuy tudde jaamu yàlla waaye loola mën nañu wax ne xëy na day ponk ya day ponk ya rek waaye jàmm yàlla moom dunduk nit képp la mën a ëmb ndax lépp lu nit di def rek mën na ko defee na ko yàlla bëgge bu ko defee na ko yàlla bëggee rek mu doon ak ak jaamu yàlla politique nag lim doon dëgg-dëgg mooy rekk taxawu ak toppatoo mbirum mbooloo mi mbirum mbooloo mi mbooloo mi mooy bu dee ab dëkk mbirum waa dëkk bi bu dee am réew mbirum waa réew mi kon di taxawu seen mbir di ko saytu di ko jéem a jagal loola mooy politique ci li muy firi dëgg dëgg dëgg bu dee loolu mooy politique dëgg dëgg nag kon dañ naan politik kon lu mën a dugg ci jaamu yàlla la ndax loolu lu yàlla bëgg la loolu lu yàlla bëgg la yàlla bëgg na ñuy taxawu ak di jéem a yéwénal mbirum nit ñi te loolu mooy politik kon mën naa dugg ci ci ci jaamu yàlla buñ xamee ne kon maanaam mooy loolu ba xamee ci ne kon mën naa dugg ci jaamu yàlla mooy kon lu baax la wala mën naa doon lu baax mën naa doon lu baax yan anam lañ koy defee anam yu wuute itam lañ ko mën a defee yoo xam ne anam gu ci ne loola da cay feeñ yittewoo mbirum nit ñi ak di ko jéem di ko jéem a yéwénal bokk na ci anam yi ñu koy mën a defe mooy di ko yittewoo rek di feeñal koo xam ne fu mu toll mi ngi bàyyi xel mbirum mbooloo mi lum ci gis ci rëq-rëq mu feeñal ko bu amee lu mu saafara la mu feeñal ko ba ña nga xam ne ñoom lay seen wàllu ñu mën caa taxaw kii def loolu mi ngi yittewoo mbirum mbooloo mi ma ngay politique sàkkuwut ñu dénk ko dara àndut ak ñenn ab kuréel itam ñu tudde seen bopp aw tur waaye moom yitte yittewoo na mbirum mbooloo mi fu mu toll mi ngi bàyyi xel liy xew lum ci gis lu mu jàppee rëq-rëq mu fésal ko lu am ci lu mu jàppee ay saafara itam mu wone ko ba ña nga xam ne ñoo yor ab dogal man cee sukkandiku di joyant loolu anamuk politik la manes na ko defe it ci sàkku ñu dénk la koo xam ne aw yitte woon mbirum mbooloo mi te jàpp na ne moom ci boppam mën na koo yéwénal ba tax mu ñëw di sàkku ñu dénk ko mbiru mbooloo mi ngir mu yéwénal ko loolu tam politique la loolu politik la waaye ki nga xam ne it dañoo toll ci war a seet ñu ñuy dénk mbiru mbooloo mi moom mu ñëw wane ca xalaatam kooku tam politique la ndax mooy ñi nga xam ne ñi ngi sàkku ñu dénk leen ko da leen di xool kum ci jàpp ne dénk ko ko mooy ëppal njariñ mbooloo mi moom mu ne nañ ko ko dénk kooku kon ba tey moom it mu ngi yittewoo mbiru mbooloo mi mu ngi politique loolu mooy kii vote loolu vote rek la ki ko jiitu mooy kii sàkkuñu voteel ko waaye kiñ dénk ba noppi tam nag sàkku nañu dénk ko ba dénk nañ ko ba noppi nag kooka nag moom it la muy def lépp politique lay doon ndax nag mooy war a doxal di jéem a yëwénal mbirum mbooloo mi di jéem a jooyante lu jar a jooyante ci seeni mbir kon loolu lépp ay anam la yuñ mën a politiquer anam gu ci ne politique la ku ci def lenn ci yii rek ma ngay politique ma ngay politique politique bu baax bu baax mooy bi tax ñuy wax te mooy yittewoo mbirum mbooloo mi di ko jéem a di ko jéem a yëwénal lan mooy doon ab àtteem kon ci diine lan moo war a doon àtteeb politique ci diine lu ñuy jox àtteem dañuy xam mooy lan lu mooy lan wax nañ ko ba noppi te mooy yittewoo mbirum mbooloo mi yittewoo luy yéwénal mbirum mbooloo mi ci anam yi wuute yooyu loolu bu fekkee nangu nañ ne loolu mooy politique dañuy xam ne loolu du rekk lu baax du rek luñ maye luñ sañ waaye farata la farat farata la du farata nag ci kenn ku ne waaye farata la ci mbooloo mi mooy mbooloo mi farata la ci ñoom mu am ñu taxaw ci lu yéwénal mbirum seen mbir ci anam yi ñu wax yépp ñoo xam ne dañuy seet la ca dox la ca doxut ñu di ko fésal ñoo xam ne dañ leen di dénk mbir mi ñu di ko doxal ñoo xam ne bu dénkaana jotee dañuy ñëw euh, taxaw ci bañ dénk ko ñoo xam ne dénk leen ko moo gën loolu kon farata la farata la ju war mbooloo mi du farata ju ñu naan kenn ku ne da koo war waaye dafa war mbooloo mépp mooy li ñuy tudde fardu kifaaya loolu bu ñu ko seetloo dëgg-dëgg day mel ne moo ëpp doole sax farata juy war ku ne ndax farata bi war ku ne bu ko ñépp bàyyi woon mën na leen a bañ a lor ci seenug dund julli julli juróom bu kenn julli wutoon julli juróom mën nañu bañ a lor ci sunug dund sunug dund lam ñu yàqal ëllëg lay doon bu àllaaxira ci misaal bu dee wor noonu bu dee aji noonu yooyu yépp nga xam ne day war kenn ku ne bu ko ñépp maase woon bàyyi itam duñ loru ci seenug dund lor ju teew waaye nag li doon li ñuy tudde fardu kifaaya moom bu amee rek lor day daal bu ñëpp buñ buñ ko buñ ca taxawut lor day am ci saasi mooy bu amutoon ñu taxaw ci lu yéwénal mbirum mbooloo mi lor day daal di am ci saasi moo tax kon buñ ko seetloo day mel ne sax buñ ko sañoon a wax dañ naan moo gën a dëgër sax farata yi nga xam ne day farata ci kenn ku ne kon politique ci loolu la bokk ci loolu la bokk lépp loo xam ne bu amut dana indi gàllankoor ci dunduk nit ñi lépp lu mel noonu rek farata la ci mbooloo mépp ñu fexe ba am ba mu am ñu fexe ba mu am politik nag ci loolu la bokk ci anam yi ñu wax yépp lu ci ne day lool bu amut dana indi gàllankoor dana indi lor ci dunduk nit ñi kon farata la waaye ak jaamu yàlla gu mag la mën a doon itam jaamu yàlla gu mag ndax liñ xam ci lislaam mooy bu faratay jàllee leneen lu nit di def loo xam ne du faratam ci moom moom ci boppam mooy bu ñu ne fardu kifaaye du farata ci man wala ci diw sàngam waaye farata ci ñépp kon diw sàngam moom mën na ko bañ a def waaye am na ñeneen ñu ko def waaye diw sàngam bu ko defee nag moom njariñ li cay juddoo lu mu gën a yaatu rek noonu la jëf ja gëne kon mooy li nga xam ne du farata ci kenn ku ne lu njariñam gën a yaatu rek noonu lay gëne mooy ki nga xam ne ci misaal liy farata ci julli mooy julli juróom bu jàllee danay julli julli yu dul farata ki nga xam ne danay woor koor yu dul farata ñooñu la dul farata la ñuy def lu baax la waaye njariñ la ci seen bopp la yem lu ma julli lum bari bari bari bari njariñ la ci sama bopp lay yem lu ma woor lu bari bari bari njariñ la ci sama bopp lay yem waaye ki nga xam ne nag la muy def ci lu dul farata njariñ la dafa gën a yaatu lu mu gën a yaatu rek loola gën a baax ki nga xam ne day def lu yem ci boppam rek njariñ la loolu baax na ndax njariñ la waaye kuy def loo xam ne dana ca jariñu keneen jariñu ci kenn rek kon kooku moo ëpp njariñ ci def li muy jariñu moom rek ki def lu ñett yi jariñu moo ëpp ki def lu ñaar di jariñu ki def li ab dëkk yi jariñu kon kooku kenn xamut la mu def nu mu toll ki def lu am réew di jariñu kenn xamut la mu def na mu toll te politique nag day may nit loolu day may nit mu def loo xam ne da ciy jariñu ab dëkkub lëm wala mu jariñ ci am réewum lëm wala mu jariñ ci daal ñu baree baree baree bari kon loola ci ëpp njariñ la bokk bu ma ne njariñ foofu mooy am yool laa bëgg a wax waxuma la njariñul àddina lu teew li waaye yool bee tax may wax li ëpp yool mooy li njariñam gën a yaatu lu njariñam gën a yaatu moo ëpp tuyaaba moo ëpp yool te politique nag bu ko defee ni ko bëggee amut lu ko gën a yaatu lu ko mën a gën a yaatu njariñ ndax njariñam mën naa dem ba daj réew mépp mën naa dem sax ba ëmb lu ëpp am réew ay réew sax wala àddina sépp sax mën na ca àgg kon lu ama lu mën a am njariñ la lu mën a am njariñ waaye njariñ loolu lépp nag lii tax mën koo am mooy ki koy def da koy defee niñ ko bëggee te niñ ko bëggee li ko tënk rek mooy na ca jublu luy jariñ mbooloo mi nam ca duggee anam yi ñu waxoon anam gum ca duggee rek na ca duggee sàkku njariñul mbooloo mi na ko ca tax a dugg bu fekkee moo ko ca tax a dugg rek loola mën naa doon jaamu yàlla gu mag a mag ndax njariñ mën na caa juddu lu yaatu lool te lu njariñ li gën a yaatu rek tuyaaba ji gën a gën a rëy léegi nag ci genn anam lañuy wax tey ah, genn anam gu ñuy politiquer te mooy tànn jot nga ñëw bokk ci ñiy tànn feeñal sa xalaat feeñal sa taxawaay ci ñiy sàkk ñiy sàkku ñu tànn leen genn anam googu rek ci lañuy wax tey kon moo jëm ci wàllu vote wàllu vote vote mooy lan wolof naan wate wate wala wate mooy lan mooy mbooloo mi moo xam ab dëkk la moo xam am réew la moo xam bu doon yeneen réew yi beneen ay gox la am na luñ bokk am na luñ bokk bokk ko moom war koo doxal waaye ku ne xam na ne ñépp mënuñoo àndandoo di doxal waa dëkk bépp mënuñoo àndandoo di doxal dëkk bi sàkkantumaa nag waa réew mépp kon dañuy tànn ñu leen wuutu mbooloo mi dañuy tànn ci seen biir ñu leen wuutu ci doxal loolee nga xam ne ñoo ko bokk bu ñu àggee ci tànn leen nag loolu lañuy ñuy tuddee élection mooy tànn tànn ñi ñuy dénk lenn ci mbiri mbooloo mi tànn leen loolu la ñuy tuddee ki ñëw nag moom di feeñal taxawaayam ci tànn googu kooku mooy kii voté mooy électeur kon bu ñu nee élection mooy luñ dénk lu mbooloo mi moom ñuy koy dénkaane ñuy tànn nag kañ koy dénk wala ñañ koy dénk loolu mooy élection loolu kon lu ñu wax rekk ci loolu la jëm waaye ba tey mook li ñuy tudde nomination ñoo bokk àtte lu ñu wax ci élection rek dañ koy wax itam ci nomination nomination moom mooy kenn rek mooy am sañ-sañu tànn kenn dénk ko dara loolu mooy nomination lépp lu ñu wax ci élection nga xam ne moom du kenn ay tànn waaye mbooloo ñooy tànn loolu mooy élection bu kenn rek mooy tànn mooy nomination waaye seeni àtte benn la waaye élection nag ci la ñëpp bokk tax ci la ñuy wax li jiitu mooy lan mooy àtteem àtteem tànn jot nga dem tànn lan mooy àtteem danoo gis ne nun warugar la warugar warugar la du rekk luñ nangu du rekk luñ maye du rekk lu baax waaye warugar la li tax nu jàpp ne warugar la it mooy yii benn day wone yittewoo mbirum mbooloo mi te loolu warugar la ab jullit daa war a yittewoo mbirum mbooloo mi mu nekk bu dee am réew mbooloom réew mi bu dee ab dëkk mbooloom dëkk bi seeni mbir ab jullit da ko war a yittewoo ab jullit warta doon koo xam ne mbirum boppam rekk a koy ñor ak mbirum njabootuk boppam waaye mbirum mbooloo mi gën a yaatu da ko war a ñor te bokk ci élection nag day wone loolu day wone na yow mbirum mbooloo mi ñor na la yittewoo nga ko bokk ci élection itam mooy tànn jot nga ñëw wane ci sa taxawaay dafay wàcc wàcc waayu seere seere day wàcc day taxaw taxawaayu seere seere mooy lan mooy am lu xew am ku ñu woo laaj ko mu wax lam ca xam kookee di ñëw di wax lim xam ci lu xew kooka mooy seere kon seere mooy di wax ci mbir lam ca xam bu bu buñ ko sàkkoo ak fañ ko sàkkoo voté nag àtte boobu la yor dafa yor àtte seere te seere nag am na nu ko lislaam jàppe benn yàlla digle na seere digle na ko ku am lum xam ci mbir buñ aajowoo xam loola sàkku ko ci moom daa war a ñëw xam la ca xam loolu la yàlla digle daa tere ñu nëbbu seere nëbbu nëbbu ko mooy xam ca dara ba noppi ñu sàkk ko nga bañ koo nga bañ koo wone lañ ca xam nga bañ koo wax loolu mooy nëbbu seer yàlla da koo tere yàlla dafa digle seere wa aqimu shahaadata lillah dafa tere nëbbu seere wala taktumu shahaada wa man yaktumha fa innahu aasimun qalbu bu leen di nëbbu seere kuy nëbbu seere bàkkaar lay def kon digle na seere tere na nëbbu seere waaye ci seere it digle na ca ñu seere dëgg dëgg mooy kii xam ci mbir dara buñ sàkkoo ci moom mu seere la muy wax na doon lam ca xam bu mu ko soppi ndax bu ca waxee lu bokkut ak lañ ca xam dëgg-dëgg dafa seere lu dul dëgg te seere lu dul dëgg nag day lu ñàng lu yonent bi ñàngal yonent bi da ko ñàngal yonent bi muy wax ñi nga xam ne bàkkaar yu mag yi yee ca gën a mag bàkkaar yu mag yi yee ca gën a magati ba mu koy tudd dafa tàmbalee ci bokkaale bokkaale ku ne xam na ne moo gën a mag ci bàkkaar yi teg ca dënge ñaari jur mooy ñàkk rafetal jëmee ci ñaari jur loolu ku ne xam na fa mu toll waaye da caa teg nag lii seere lu dul dëgg kon seere dañ koo digle benn dañoo tere ku ko nëbbu yàlla wax ne ku ko nëbbu bàkkaar lay def waaye yónnente bi itam euh, tere ku ko nëbbu mooy bañ a seere waaye tere itam ku seere lu dul dëgg te ñàngal ko lool nag ba boole ko ci bàkkaar yi gën a gën a yi gën a rëy kon buñ ne vote dafa yor àtteb seere dañu xam ne kon àtte yooyu yëpp da cee dugg moom itam day doon lu luñ sàkku day doon lu ñuy bañ ku ko bañ a def bu jotee day doon lu ñuy bañ itam ku ko defe nu mu ko wër defe kon ñaareelu mbir moo tax ñu jàpp ne noonu vote waru garal ñetteel bi mooy dafa dafa taxaw taxawaayu jaayante jaayante bu njëkk ki daan jiite jullit ñi nit ñi ñooy ñëwal seen bopp ci moom ne ko nangu nañ nga jiite ñu loolu mooy jaayante nangu nañ nga jiite ñu xëy na jamono yooya lu mënoon a nekk la lu xewoon la daal jamono daal jamono yo noonu lañ daan doxale ku daan jiite nit ñay ñëw ne ko nangu nañ nga jiite nu bu ñëpp ñëpp ñëpp dëppoo ca loola it ña ca gën a bari buñ ca dëppoo rek ñu nekkoon kooku mooy njiit li loolu mooy jaayante loolu nag yonente bi dafa wax ne munta ñàkk ci ab jullit ab jullit bu ñu waree tànn seen njiit war na caa feeñal xalaatam te ñi ëpp itam kuñ tànn war na caa ànd war na caa ànd bu fekkoon ne moom ci boppam sax xalaatu boppam doon kii doon njiit waaye nag mbooloo mi ñi ci ëpp ànd nañ ci kon daa war a ñëw moom itam jaayante ne ko nangu naa nangu naa nga doon njiit ndax ñëpp nangu ñi ëpp ëpp nangu nañ ko kon nangu naa loolu moo jaayante jaayante googu yonente bi dafa waxoon ne ku faatu te yóbbaale ko ku faatu te yóbbaale ko mooy bi muy faatu fekkoon na mu war a jaayante te jaayante wutoon yonte bi dafa def ne ku faatoo noonu faatoo na ak ceddo faatoo na ak ceddo mooy loo xam ne daal dëppoowut ak diine dëppoowut ak dëppoowut ak lislaam te nu jàpp ne nag vote atteb jaayante la yor itam ndax jaayante mooy nga ñëw wone ne kii ànd naa ci mu jiite bu toon sa xalaatit ba ñu ëpp ànd ci ba tey nga ñëw ne ginnaaw ñëpp ñi ëpp ànd nañ ci ànd naa ci man tam loolu mu jaayante bu dee wat nam loolu la mooy ñu war a tànn nga ñëw ne man kii laa laa ànd ci mu jiite keneen wax ko ci keneen keneen wax ko ci keneen bu ñu noppee seet ñi gën a bari kañ wax ñu nekkoon kooka mooy doon njiit kon ñett yooyu bokk na ci tax nu jàpp noonu nu nu jàpp ne wote waru gar benn dafa day wone yittewoo mbirum mbooloo mi te yittewoo mbirum mbooloo mi waru gar ñaareel bi dafa yor àtteb seere te seere waru gar am na nuñ ko bëggee itam ñetteel bi dafa yor àtteb jaayante te jaayante ba tey waru gar la waaye lépp itam liñ ko waxee woon ci jëmmi politique ci boppam rek nga xam ne moo gën a yaatu ne li ko tënk rek mooy ki ciy dugg dugge ci sàkku njariñul mbooloo mi bu dee wàllu vote itam li ci war a tënk nit ki mooy mu xool ci moom itam njariñul mbooloo mi mooy ki mu naan moom laa bëgg mu jiite na fekk mu jàpp ne kooka jiite moo ëppal njariñ mbooloo mi bu dee ab dëkk la moo ëppal njariñ dëkk bi bu dee am réew la moo ëppal njariñ réew mi lan moo war nag kiy tànn ki nga xam ne tànn jot na mu am sañ-sañu bokk ci bu ci bokk lan moo ko war li ci njëkk mooy tànn googu mu dëggu ci mu dëggu mu dëggu ci ak tànnam te jublu ci rekk njariñul mbooloo mi la ko ca jañ mooy njariñul mbooloo mi waaye njariñul boppam jañu ko ca mooy ki muy tànn tànn ko ngir njariñul boppam moom walla njariñul ay àndandoom moom ay farandoom walla daal ak kuréelam waaye njariñul mbooloo mi bu dee ab dëkk li ñuy dénkaane njariñu dëkk bépp la ci xool bu dee am réew li ñuy dénkaane njariñu réew mépp la ci xool kon la ci njëkk ci li war kiy tànn mooy mu dëggu ci tànnam te dëggu ga mooy mu xool ca njariñul mbooloo mi loolu fu ñu ko sukkandiku ginnaaw neewoon nan moo àtteb euh, àtteb seere la yor seere loolu la ci yàlla sàkku seere loolu la ci yàlla digle daf ne wa aqimu shahaadata lillah dee leen seere ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla mooy du seen njariñul bopp seen njariñul bopp taxut waaye ngir yàlla mooy dangeen koy def ngir dëppoo ak bëgg-bëggu yàlla te bëgg-bëggu yàlla mooy dëggu mooy dëggu rekk mu waxaat ne na di seere ngir yàlla ba tey donte donte sax seere si day dal ci seen kaw yéen yéen ñiy seere day dal ci seen kaw mooy sax bu ngeen seere lii doon dëgg sax dangeen ngeen ciy loroo donte da ngeen ciy loro yéen walla seeni wayjur loroo ci walla seeni bokk loroo ci kon bu seere jotee seereel dëgg rek donte yow sa bopp da ci loru mbaa say wéjur loru ci mbaa say bokk loru ci yaa ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw ilwalidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima kon mooy seere bu jotee seereel dëgg rek bul xool ne lii may seere dana ma jural lor wala dana ko jural samay bokk bul xool seere si day jariñ ko am walla ku ñàkk walla day lor ku am walla ku ñàkk na nga xam ne yàlla moo gën a moo gën a yaayee moo gën a yayoo bàyyi xel moo gën a yayoo sàmm loolu bu ñu ko àndee ci yi tam kon mooy ki nga xam ne day vote na voteel kim jàpp rek ne moo gën ñu dénk ko ko moo gën dénk ko ñeneen ñi du ñu wax ne moo gën dénk ko ku man di doon ndax ku man di doon bokku ci bu ñuy tànn moom daa am ñu ñëw rek ñii rek lañu la wax ci biir ñii rek biir ñii ko ci jàpp ne dénk ko ko moo gën loolu mooy seere kon da ngay seere mooy li nga jàpp yow moom ngay wone yow jàpp nga ne demba mii dénk ko ko moo gën dénk ko sàmba wala bàcc wala moor wala ci des ñëpp boo ñëwee voteel demba mooy da seere ne dénk ko demba moo gën dénk ko ñii ci des boo woteelee moor da ngaa seere ne dénk ko moor moo gën ci réew mi dénk ko ñii ci des loolu moo tax mu yor wàccuwaayu seere liñ liñ digle nag mooy ba ngay def loola nag na doon na doon dëgg ci yow na doon dëgg ci yow na fekk ne dëgg dëgg dëgg sa digganteeg yàlla da nga jàpp ne moor mi ñu dénk ko ko moo gën ci réew mi ñu dénk ko ñii ci des loola mooy tax mu doon seere dëgg te seere dëgg la yàlla digle waaye boo xamee ne ci li nga jàpp sa xam-xam lim la may mooy dénk ko moor moo gën ci réew mi dénk ko demba waaye am na loo sëx ak demba ba tax yow nga ñëw sa wàll yow nga dénk ko demba loolu mooy seer lu dul dëgg mooy nee nga demba moo gën ndax bi nga watee rek loolu loolu nga wax te xam nga ne gënut mooy loolu mooy seere lu dul dëgg kon kuy wote ki muy woteel na fekk ne dafa jàpp ne dénk ko moo gën ci mbooloo mi ñu dénk ko keneen ci ñi koy sàkku ñaareel bi mooy bu tënkoo ci loolu kon du bàyyi xel yeneen yeneen yi nga xam ne am na ñu ciy tënku kon du tënku ci njariñul boppam moom li delsi ci moom man kat ma tànn diw mooy tax mu am njariñ lu dellusi ci man mën naa am sax diw da koo defal njariñ ba noppi diw da koo jariñ dara tax mu a ginnaaw kii daal moo ma jariñ lii kon moom laay tànn te ñaar yu bokkul loolu seen diggante la te tànn gi nag mbirum réew mi la kon tànn gi moom ku ëppal njariñ réew mi nga war a tànn boo demee bay dox sa mbirum bopp nag ki la defal dara nag ngeen séq ko waaye mbirum réew moom doo ko fayee lu la nit defal loo xam ne seen diggante la kon du njariñ luy si ci yow wala luy dellusi ci sa mbooloo du tax nga tànn diw doo tànn diw itam ngir lu ngeen bokk daa am lu ngeen bokk yéen a bokk aw xeet wolof la candidat moo ciy wolof kon mu lay àndal wala moo ciy pulaar kon moom laay moom laay àndal wala moo ci séeréer kon moom laay loolu tam day dàqwanteeg xool njariñul mbooloo mi wala sax moo fi dëkk moo noo bokkub dëkk moom daal moo fi dëkk Touba wala moo fi dëkk ci département Mbacké wala moo fi dëkk ci région Diourbel kon moom lay tànn loolu lépp du lu ñu war a bàyyi xel ci tànn wala noo bokk ab tariixa noo bokkub tariixa wala noo bokkub sëriñ sëriñ ci lañ tàmbulees noo bokkub sëriñ noo bokkub tariixa wala noo bokk bu dee ñu nekkul ci tariixa ñoo bokk association buñ buñ bokk yooyu yépp kii tànn waru caa bàyyi xel bu bàyyiwut xel ci yooyu rek mooy kon njariñul mbooloo mi rek la bàyyi xel kon na tànn te sukkandiku rekk ci njariñul mbooloo mi bañ a sukkandiku ci yeneen yee ñoo bokk nangam walla tànn ko moo jariñ man walla mooy jariñ sama kuréel te njariñ lim lay jariñ nekkul ci biir njariñul mbooloo mépp waaye njariñul mbooloo mépp moom yaa ngi ci biir sa kuréel a ci biir bu fekkee njariñul mbooloo mépp a tax nga tànn sa njariñ mi ci biir ndax ci mbooloo mi nga bokk sa kuréel njariñee mi ci biir ndax ci mbooloo mi la bokk waaye doo xool sa njariñ rek walla sa njariñul kuréel rekk yan nattuwaay lañu war a sukkandiku nag ci tànn buñ naan njariñul mbooloo mi war naa am ay ay junju ay tegtal ay tegtal yu ñuy gis ci nit ki ba jàpp ne tànn ko dana jur njariñul mbooloo mi buñ ci rawantee ñu mën a sukkandiku ci yooya ba jàpp ne ka tànn kii mooy ëppal njariñ mbooloo mi mooy ay nattuwaay nattuwaay yooyu bokk na ci ñu xool ay melo ci ki bëgg ñu tànn ko mooy ñi bëgg ñu tànn leen nañ xool ci ñoom ay melo melo yi bokk na ci liñ leen bëgg dénk xam nga mu laaj xam nga mu laaj nekk ci ñoom ñii ñëw daal ku nekk ne bëgg nañu dénk ko dañ xool kenn ku ne ndax xam gi mu laaj nekk na ci moom walla déet li ñuy bëgg a dénkaane xam gi mu laaj ndax nekk na ci moom ak xam laa wax nag waaye waxuma xam-xam ndax xam-xam moom amul ci njiitu réew amut xam-xam buñ naan nit da koy am door a mën a jiite am réew amut jiite ab dëkk amut xam-xam naan nit da koy am door man teewal mbooloo mi fa ñuy ay yoon ak yu mel noonu fi ñox réew ma amul xam-xam buñ naan nit da koy am door koo man kon du xam-xam waaye xam xam ak xam-xam bokkuñ ak xam kon mu am ak xam bu ko may mu mën a taxaw te la ñuy dénkaane ci jikko yi ak xam ñaareel bi ak wóor wóor ndax dénk moom bu ñu xasee wax dénk rek ku ñuy dénk daa war a wóor ku ñuy dénk daa war a wóor kenn du dénk dénk ku wóorul foog naa bu fekkee euh, bëgg naa sàmm la muy dénkaane kon kuy dénkaane day dénk ku wóor rawatina am réew jiite am réew jiite am réew bu ñu koy dénkaane ku wóor lañ ko war dénk ndax liñ koy dénk dafa bari dafa bari dafa bari te ginnaaw kuy denkaane alal alal rek dana ca xool ak wóor sàkkantumaa nag kuy dénkaan loo xam ne alal a ngi ci leneen a ngi ci lu ëpp doole alal ma nga ci ndax dénkaane njiit ji njiitul réew mi loolu lépp daana ca biir kon kuñ koy dénk war nañoo xool ci moom ak wóor mu doon ku wóor bu doon dénkaan leneen la moom it daañu ca xool mu doon mu doon ku waaye war nañ caa mu doon ku am kàttanu yaram kàttanu yaram ci ci man te man mën a taxaw ca lañ koy dénk bu dee lu laaj kàttanu yaram la kàttanu yaram gamu laaj nan xool ca moom ndax ma nga ca moomam déet yooyu yëpp kon yu ñuy xool ci jëmm ji la te yooyu yëpp itam mën nañoo jële ci alquranul karim lu nuy won ne war nañ koo bàyyi xel ci ki ñuy tànn seyd Seydina Yuusuf na Yuusuf ba mu bëggee ñu dénk ko dara ci mbirum réew mi moo ñëwal boppam ne nañ ma ko dénk waaye ba mu ne nañ ma ko dénk daa wax li ne ci moom ba tax ñu war ko ko dénk daf na nañ ma ko dénk ndax kat wóor naa te am nag xam itam ci mbir mi qaala jaalni ala xazaini al ard inni xafidun alim ku wóor laa liñ ma dénk danaa ko sàmm te it ku amuk xam laa ci mbir mii benn mu doonoon mbirum mbay ci misaal bu doon léegi ñu ne ministère bi yor wàllu mbay mi la bëggoon ñu dénk ko wala ñu ne mbirum koom ci boppam la bëggoon ñu dénk ko waaw lu ci man di doon wane na ne war nañ ko ko mën a dénk ndax wóor na te it am nag xam gu aju ci mbir mi bu dee ci ba tey naa daawut ak ñim àndaloon bi leen yàlla tànnalee njiit njiit loola moom njiit njiitul xare la woon xare dañoo waroon dañoo nekkoon ci ay xeex ak seeni noon àgg ci war a am njiit Seydina Daawud ne leen yàlla tànnal na leen taaluut tànnal na leen taaluut mu nekk seen njiit man leen a jiite man leen a jiite ci xare yi ngeen def itam ñoom ñu xool leneen loo xam ne gisuñ ko ci moom ba tax ñu ne matu leen njiit moom daal bariwut alal bariwut alal kon munta doon suñ njiit noo ko ëpp alal Seydina Daawud ne leen li mu laaj mi ngi ci moom njiit lii ngeen aajowoo li mu laaj mi ngi ci moom te li mu laaj nag du alal li mu laaj mooy ak xam ak kàttan xam ci wàllu xeex ak njiite ak kàttanu yaram goo xam ne dana ci mën a dana ci mën a jiite ci xeex yi ngeen di xeex qaala inna allaha astafaahu aleykum wa zaadahu bastatan fi lilmi wal jism yàlla jox na ko moom taalut mi ci ak xam ak kàttanu yaram loo xam ne amoo leen ko yéen kon mat na leen jiit gis nga kon xam gi ak wóor gi ak kàttan gi nga xam ne laaj na ko war nañ koo xool ci ñi nga xam ne ñu ngi sàkku ci ñuy sukkandiku ba mën leen a xàjjale waaye am na lu am solo yit lu ñu war a xool ci ñuy sàkku mooy mu bañ a doon koo xam ne jaral na ko lu ne li mu bëgg ñu dénk ko ko jaral na ko lu ne ñu dénk ko li muy sàkku daal jaral na ko lu ne da cee xar tànk tubayam loolu tam ku ci àgg foofu kenn waru koo dénk ku ci àgg foofu kenn waru koo dénk kum jaral lu ne moom daal lu man di xew nañ ko dénk loolu ku ci àgg warees koo dénk loolu yonent bi moo na ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam booba moom da doon wax ne ku ci xéer ku ci xéer ku xéer ci ma dénk ko dara duma ko ko dénk ku xër ci ma dénk ko dara duma ko ko dénk ku ko sàkku rek sax jamono yooyu ñàkk sàkku mënoon naa nekk jamono yooyu yonent bi moo fi ne xam na njaboot gépp xam na leen du woon élection waaye nomination la woon moom moo doon tànn rek moom rek mooy tànn di dénkaane te xam na njaboot gi xam na ku ne lu man ak lu mënut kon bu soxlaa dénkaane jarut ñu ñëw naan ko dénk ma ba ku ko masaa wax daan la ah ku ko sàkku duñ ko ko dénk may xoole sama bopp rek ba gis ku doy ma dénk ko ko ku ci xër duñ ko ko dénk bu dee nëga ni sàkku gi munta ñàkk ndax niñ tëralee mbir yi ci boppam moo moo laaj sàkku gi kon nit sañ naa sàkku waaye bu sàkkoo nag bu mu àgg nag ci xër ci mu jaral ko lu ne mu jaral ko lu ne abu muusa al yi ci saxaaba yi la bokk moo wax ne mas naa ànd ak ñaar ci ci ñu mbokkal ñu mbokkal xeet ñu mbokkal xeet mu ànd ak ñoom ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ca ñaar ña ne ko dénk ma nangam jamono yooye li ñu daan dénkaane mooy lu mel ne lu tolloog ay préfet ay gouverneur ak yu mel noonu kenn ki ne ko ci misaal teg maa def préfet béréb sàngam keneen ki itam wax ko lu mel noonu ma it teg maa def préfet béréb sàngam walla gouverneur yónnente bi ne leen Abu Moussa mi ci àndoon moo wax ne yónnente bi daal ah nun kat kuy sàkku duñ ko dénk kuy sàkku duñ ko dénk ku ci xër itam duñ ko duñ ko dénk bu dee nëgëni duñ mën a wax kuy sàkku ndax sàkku mënut a ñàkk waaye xër gi moom mën nañ ko wax ba léegi mën nañ wax ba léegi ne kuy xër ku ci xër dee su ko dee su ko dénk xër ci nag bokk na ci ñuy dem ba di ci neexle ba di ci neexle ñuy dem ba di ci neexle walla dem ba di ci jënd ay nit di leen fay loolu moom wax dëgg yàlla ku ànd ak xelam nit ñëw ne kaay ma liggéeyal la ndax liggéey la ku ñuy dénk réew mi dañ koy liggéeyloo ku ñuy dénk ab dëkk dañ koy liggéeyloo ku ñuy teewloo ci pencu ndawi réew mi dañ koy liggéeyloo ki ñëw ne liggéey bii nga xam ne yaa ko moom mën naa la koo defal bu àggee ci di la neexal walla di la jënd bu amee xel doo ko dénk danga xam ne am na leen lum bëgg bu dee liggéeyal la rek la bëgg du àgg foofu liggéeyal nit rek lu <laughs> ci yar di àgg ba ci di ko neexal ngir ngir ngir mu mu nangu nga liggéeyal ko àgg ci di ko jënd ngir mu nangu nga liggéeyal ko ku àgg ci yooyu safaan bi safaan bi la war a doon kenn waru ko wóolu ndax ku ne war naa xam ne am na leneen lu mu ci bëgg lu dul liggéeyal la rek liggéeyal la rek lu àgg ci di la ci neexal walla mu la cay jënd day mel ni kuñ daan nettali rek ku waajoon dañ ne ko divaar la foog naa war a ñëw senegal di tàggoo ba am ñu ne ko dañ lay yóbbante dañ lay yóbbante bas yàgg ñi ko bëggoon a yóbbante am ko ci ko ne dama koy bàyyi mu jàppanteek moom lu tax <laughs> lu tax mu bëgg a bàyyi yóbbanti mu bëgg a yóbbanti xam kooku am na lu mu ci naroon leneen am na lu mu naroon leneen ci yóbbante jàmbur bi ki nga xam ne dane nañ ma dénk ma liggéeyal leen moom it nag bu àggee ci li ci neexle wala mu ci jëndee kon am na leneen lu mu nar am na leen lu mu bëgg kon war nañ caa xool loola war nañoo xool ci kii sàkku itam li ñu wax ci kàttanu yaram bu ko laajee waaye nag li ñuy wax kàttanu biir muy doole ak dëgër dëgër dëgër laa bëgg ak dëgër ak dëgër it war naa nekk ci moom dëgër du dëgëru yaram waaye dëgëru maanaa dëgër mooy koo xam ne bu dëgg jotee day def dëgg bu àtte jotee day àtte ki nekkul ci dëgg ku man di doon da koy xamal ne nekkul ci dëgg kii am dëgg ku man di doon na koy jox dëgg dëgër googu moom itam war naa nekk ci ki nga xam ne dañ koy tànn kon ñi sàkku war nañu xool ci ñoom loola lii abu muusa euh, euh, abu dhar abu dhar alxifaar yi moo nettali te moom ci saxaaba yi jiitu ci lislaam la bokk ñu njëkk a dugg ci lislaam ci la bokk ñu ràññ ko woon ci mbaax ak dëddu àddina ci la bokk abu dar alxifaar yi ba ñépp xamee ko ko ak ñi muy dëgg waaye moom ci boppam moo ne mas naa ñëw ci yonente bi ne ko waaw xanaa dooma def gouverneur béréb sàngam wala préfet wala yu mel noonu mu ne ko ah yow kat abu dar dëgër gim laaj nekkul ci yow dëgër gi mu laaj nekkul ci yow te nag ndénkaan la ndénkaan la mooy yii ñuy fale ndénkaan la te ndénkaan loolu bu yowmal xiyaamee li muy jural nit ki mooy rëccu ak gàcca rëccu ak gàcca lay jural nit ki bu ëllëgee kudul kudul ku ca jote nam ca war a jote te def la lam ci war a def kooku rek moo ci dul moom la ca rëccu dul fekk moom la ca gàccee dul fekk waaye ku ko jote nu mu ko wërta jote boo liggéey bu àllaaxira rëccu ak gàcce moo ko cay fekk ku ca jot itam doxe nu mu ci wërta doxe it moom itam bu ëllëgee rëccu ak gàcce moo ko cay fekk te yow nag boo ci jotee moom xam naa ne doo ci doxe nañ ca war a doxe ndax dëgër gi mu laaj nekkul ci yow dëgër gi mu laaj nekkul ci yow am na neneen nuñ ko nettalee sax noo xam ne nam dikke sax dafa day waar ndax dañoo wax ne da ko wax ne ah yow kat li ma bëggal sama bopp laa la bëggal li ma bëggal sama bopp moom laa la bëggal moo tax du ma la dénk li nga bëgg duma la defal li nga bëgg loolu yéeme la ndege ni ku ñëwoon ne dama bëgg nga woteel ma mu ne ah yow ko dina bëggoon sama bopp laa la bëggoon moo tax du la wateel waaye daal di koy wax li ne ko ndax lim laaj ci dëgër nekkul ci yow te bu ma la ko dénkee bu ëllëgee da nga ci am gàcce gii ma wax ak réccu gi te bëggaluma la loolu ndax bëggaluma ko sama bopp bëggaluma sama bopp gàcce ak ëllëg ak réccu ëllëg moo tax bëggaluma la ko ndax li ma bëggal sama bopp laa la bëggal te bu ma la ko dénkee loola dana la dal bu ëllëgee te loolu bëggalu malu loolu jara jara di bàyyi xel la mooy nit ki sàkku ci yow dara nga xañ ko ko te li tax nga xañ ko ko mooy li nga bëggal sa bopp nga ko bëggal ndax xam nga ne boo ko ko joxee da ciy loru ëllëg te bëggoo loru yow kon bëggoo moom itam mu loru te loru ji nag mooy nga defal ko li bëgg moo tax mu ne ko li ma bëggal sama bopp moom laa la bëggal moo tax dana ko dégg kon yii nu wax war nañ koo xool ci ñii sàkku ku ci xam ne am na lu ci nekkul moom ñu génne ko ñu génne ko buñ génnee nag ba mu des ñoo xam ne moom yépp a ngi ci ñoom nag ñu door a seet nu ñeenti xàjjale wala bu ñu demoon ba nekkul ci kenn ba tey ñu seet nu ñeenti xàjjale wala buy li nekkee ci ñii li ne ci ñii ba tey ñu seet nu ñeenti xàjjale nu ñu leen di xàjjalee nag mooy bu dee dafa am ku baax wala ñu baax am ku gën walla ñu gën kon ka gën la ñuy gën dañuy dénk ñi sàkk dëgg la ñoom ñëpp baax nañ waaye nag am na ku gën kon ka gën ka gën la ñuy dénk loolu xelum kese rek loolu lay wax xelum kese mooy boo dee dénkaane gis ñu ñoo xam ne ñëpp dénk leen baax na dana doon njariñul réew mi waaye nag am na ci kopp dénk ko moo ëppal njariñ réew mi kon kooku rek nga sañu dénk sañoo dénk keneen boo dénkee keneen rek te xam ne am na ku ko ku ko ku ko ca gën a yey boobaa seere si ñu waxoon muy seere lu dul dëgg moom nga def ndax nee nga kii moo gën te xam nga ne kee moo ko gën kon ka gën moom lañuy moom la ñuy woteel bu fekkee dafa am ñu baax ak ku gën bu fekkee dafa am ku baax ak ñu baaxut ci seen biir bi ñu ko xoolee gis ne ak ah, kii moom baax na waaye ñi ñoom wax dëgg yàlla booba ka baax la ñuy ka baax la ñuy la ñuy tànn ka baax kon boo amee ku baax ak ku gën ka gën boo amee ku baax ak ku baaxut ka baax ay nattuwaay yi ñeenti xàjjalee bu fekkee sax dañ ne kenn baaxut kenn baaxut ñii fi nekk ñëpp daal bi ñu xoolee nattuwaay yi ñu gis melo yi ñu doon xool ci ñoom bi ñu ko xoolee daal wax dëgg yàlla kenn gënu ji ci réew mi kenn baaxut ci réew mi waaye teewut moom danañ ko dégg kenn ci ñoom ndax noonu lañu tërale mbir yi dañoo wax ne bu ñu àggee ci jamono sàngam ñi bëgg ñu denk leen réew mi dañuy ñëw sàkk ko nit ñi xàjjale leen xas nañ ko def ba si fii kon mënta ñàkk ñu àggale ko buñ demee ba ne kenn baaxu ci itam am yow yow laa bëgg wax kenn ku ne moo koy waxal boppam du ñëpp ñooy maaso maase waaye kenn ko ne kenn ku ne moo naan ñii daal ñëpp baax nañ waaye kii moo gën kon ka gën lay lay lay lay lay wateel kenn ku ne ba tey moo naan ñii daal am na ci ku baax waaye ñi ci des ñoom baaxuñ kon moom kam ne moo baax moo ne watal kenn ku ne ci nun tam moo naan ñi ñëpp daal kenn baaxu ci waaye bu ne kenn baaxu ci it dana xam ne seenu ñàkk baax yemut ñàkk baax du maase duñ ci maase dana am ku bon dana am ku bona bon dana am ku bona bona bon mën na ca am ñépp bon bu ñépp bone itam taxut ñëpp yem ndax bi ñëpp baaxee taxul ñëpp yem bu ñëpp bonee itam taxul ñépp yem man naa am ku bon ku bon a bon ak ku bon a bon a bon bu fi ku bon nekkee ak ku bon a bon na jàppale ki bon ndax bu jàppalee ki bon bu ëllëgee ak mbaax dana ko gën a jege ndax ki bon moom bu yéegoon rek daal di baax bu dee ku bon ak ku bon a ku bon ak ku bon a ku bon a bon a bon ba tey ku bon gi bu dee ku bon a bon a ku bon a bon a bon ki bon a bon mooy daal ki gën a yées ak mbon loolu liñ ci jublu rek mooy danoo jàpp ne wax na ñépp a yem rek kon jarut jarut jarut dara daal wala ma dara loolu jàppuñ ne lu jaadu la ndax ñépp mënuñoo yem ñépp mënuñoo yem ñépp mënuñoo yem ci mbaax ñépp mënuñoo yem ci mbon boo jàppalee sa bopp na yow ñépp a bon it seen mbon mun te yem te yow sa warugar moom mooy yow la gën a jege ak mbaax moom nga war a jàppale bu ak mbaax bu fi ak mbaax ne nekkee la ci gën a mat moom nga a jàppale bu fi ak mbaax ak lu dul mbaax la doon ak mbaax bu fi lu dul mbaax kese nekkee la ci gën a jege ak mbaax la gën a jege ak mbaax nag mooy ki bon rek yem ci ki bon rek yam ci moo gën a jege ak mbaax ci bon a bon ci misaal yii ñu wax nag nattuwaay yooyu ak melo yooyu muy xool melo yi sukkandiku ci nattuwaay yii moom la war a boole ba ba woteel ki ñuy woteel yooyu la war a boole ku defut loolu nag ku defut loolu bi nga xoolee melo yi gis nga ci diw mi daal melo yi nekkewut noonu ci moom ñi ci des ñoo ko ci ëpple waaye nag diw moomu laa bokkal nangam wala moo ma defal nangam wala moo may defal nangam wala yu mel noonu ba tax nga watal ko loolu yonente bi sallallahu ale wa sallam dafa wax lool jàpp nañ ne lii da cay dugg ndax dafa wax ne képp kuy dénk mbirum jullit yi ku ko dénk ku ko dénki nit te xam ne am na ku ko ca gën a yey ku dénkaane ku dénk mbirum jullit ñi nit te xam ne am na ku ko ca gën a yey yonent bi naan ko def loola war na yàlla war na yonent bi sallallahu alayhi war na jullit ñi te ci vote loolu mën na cee am mooy lii ma wax nii bi nga xoolee melo yi xool nattuwaay yi lim la jox nga teg ko fee def leneen loolu mënuñ ko jàpp lu dul wor yàlla wor yonent bi wor jullit ñi ndax loolu yéen tam waxoon ci kuy dénkaane te lii dénkaane la nomination la doon def moom léegi élection la ñuy def noonu kii def nomination war na cee bàyyi xel kii def élection war na cee bàyyi xel loolu kon mooy nattuwaay yi ñu war a sukkandiku ba xàjjale ba xàjjale ñi nga xam ne ñu ngi sàkku bu fekkee am na yuñ bokk bu fekkee kii daa am kii amul moom kii am la ñuy jàppale kii amul ñu bàyyi ko buñ bokkee am nag ñu seet nu ñu leen xàjjalee kii ëppale buñ bokkee ñàkk ñoom ñëpp itam ñu seet nu leen xàjjalee ki gën a woyofle mooy ki gën a woyofle ak moom bu ko defee nag nu tënk ci waxtaan wi kon ne li ñuy tuddee vote walla élection dafa bokk ci li ñuy tuddee politique li ñuy tuddee politique da cee bokk te politique boobu xam nañ ne li ñuy tuddee farata ju war ci mbooloo mépp la waru garu mbooloo mépp la waaye mbooloo mi nañoo taxaw ba am ñu ca taxaw farat la ci mbooloo mi ñu def ba am ñu ca taxaw ci anam ci anam gu rafet bu dee bokk ci élection ci boppam nag niñ ko gisanoon mooy warugar la te teg ko fi ñu ko teg gis nañ ci waxtaan wi ne kii tànn dafa war a jiital njariñul mbooloo mi waaye warta jiital njariñul boppam walla njariñul ab kuréelam buy tànn itam ñi nga xam ne ñooy sàkk ñu tànn ci seen biir kam ca jàpp ne moo gën tànn koo gën ci moo gënal mbooloo mi moo ëppal njariñ mbooloo mi kooku la war a tànn waaye itam kii tànn itam daa war a jàpp ne moom bulletin bi mu yor moom nga xam ne ba boppam la daa war a jàpp ne moom ci boppam mooy tànn njiitul réew mi kim tànn mooy doon njiitul réew mi noonu la ko war a jàppe day mel ne man lañ tànnloo njiitu réew mi noonu la ko war a jàppe ginnaaw man lañ tànnloo njiitu réew mi nag ñi ñëw sàkk ko ki ma ci jàpp ne mu jiite réew moo moo gën kooku laa koy laa koy defal kon bu mu jàppee kàrtam lu woyof muy bulletin bulletin bii bosom bii nii bu mu ko jàppee lu woyof loo xam ne day ñëw rek dugal ko fen day ñëw jël kenn rek dugal ko ci waaye day jàpp ne moom ci boppam mooy fal président loolu lay jàpp day jàpp ne moom ci boppam ginnaaw ci président lañ toll moom ci boppam mooy fal président kon nag dana ko natt nattaat ko nattaat ko nattaat ko ndax day jàpp ne moom bulletin bii mooy fal président kenn ku ne loolu la war a jàpp te ci dëgg-dëgg it mën na koo doon ndax fi ne sa carte yi mën naa tax ku gañe kok boo ko boo ko dugal toon tu gañe mën naa tax ku ñàkk koo xam ne boo ko dugaloon moom mu gañe sa wenn carte yi rek wenn carte rek mën naa soppi résultat élection kon mooy sa wenn carte da jàpp ne yow moom mooy fal moom mooy fal njiitu réew sa yoon néewut ci ñi ci des yeneen juróom-ñetti millions yi ci des wala juróom-ñaari million yi sa yoon néew ci sa carte bopp yi nga jàpp ne yow mooy fal président de la république boo koy booy jël sa bulletin nga jëlee ko ci anam googu leneen lu kii tànn war a bàyyi xelit mooy mu xam ne kii muy tànn kii muy tànn day bokk ak moom la muy def day bokk ak moom la muy def mooy bu tànnee ku amal njariñ réew mi kon kooka njariñ lu mu jariñ réew mi rek moom mii ko tànn itam bokk na ca njariñ loola mooy kon tuyaaba jum ca amee te waxoon nañ léegi ne tuyaaba ju réy lañ ci mën a amee kon tuyaaba ju ca kooka amee rek moom it da cay bokk ndax bokk na ci ñi sabab ñu dénk ko ba tax mu jariñ réew mi ni mu jariñ réew mi kon na xam ne ki mii tànn lu mu def da koy bokk ak moom bu defee lu muy amee tuyaaba day am ci tuyaaba ja moom it waaye bu defee safaan itam nag boo ca safaan fekkee da ko ca fekk moom it ndax moo ko jàppale ba mën a def lee mu def bu dee lu baax la def tuyaaba jam cay am moom itam da cay am waaye bu defee safaan itam safaan ba mu cay am moom itam da ciy am da ciy am bu fekkee ba koy tànn xamoon na ne am na ku ko ci gën a yey waaye leneen a tax rek mu tànn ko leneen moo tax mu tànn ko ba mu ñëwee def ab safaan kon lu mu jëlee ca safaan ba moom mii ko bokkoon ci ñu ko tànn it day ànd ca safaan boobu bu fekkee ba mu koy tànn xamoon na ne ñeneen ñi am na ci ku ko gën a yey bu fekkee nag dafa jàppoon dëgg dëgg ne moom moo ci gën a yey boobaa dañ ko nax dañ koo wor dara du ko ci fekk ndax liñ sant nit ki mooy kem kàttanam yàlla lim sant nit mooy bu def kem kàttanam buñ dee tànn ñii ñëw nañ kenn ku ne bëgg naa sa kem kàttan ngay mën a def sa kem kàttan mooy li nga xam ci ñoom nattuwaay yi ñu teg bi nga ko xoolee seeni jaar-jaar bi nga ko xoolee yow daal sa digganteeg yàlla jàpp nga ne ñii daal di ko sàkku diw mii ñu dénk ko ko moo gën dénk ko ñi ci des sa digganteeg yàlla boo xasee def loolu rek wàcc nga boo ëllëgee lu mu mën def cib safaan it dara du la ci fekk ndax yow ba nga ca tollee fi nga waroon sukkandiku fa nga sukkandiku bu fekkee moom dalaa war nag moo woon lu nekkut wala mu soppiku ginnaaw bi loolu mbirum boppam la waaye bu dee nag ba koy tànn nag xamoon nga ne am na ku ko gën a yey ba noppi nga tànn ko ngir yiñ doon wax ñoo bokk nangam wala moomay jariñ boobaa nag lu def ci safaan lu ko ca fekk daan la ca fekk yow itam ndax yaa ko jàppale ca loolu mu def ci safaan am na lu am solo it mooy ne vote vote lu mën a jural nit ki tuyaaba ju rëy la tuyaaba ak njariñul àddina waaye lu ko mën a jural safaan ba itam la mën na ko jural looru àddina mën na koo jural looru alaaxa itam ndax yi ñu doon wax yépp bu tënkoo ci li mu war a tënku bu tënkoo ci li war a tënku kooku tuyaa ba ciy jële te bu dee kam tànn itam yàlla dogal na moo jàll ba jariñ na réew mi kon njariñu la àddina itam jële na ko ci waaye bu dee tànn na kum xam ne am na ku ko gën a yey daal na cee am bàkkaar ba noppi moom ndax seere na lu dul dëgg seere na lu dul dëgg am na ci bàkkaar ba noppi waaye bu yàlla dogalee kookan far jiitu ba yàq dara ci réew mi kon yàq googe dana ci loru moom te am na ci bàkkaaru boppam ba mu njëkk am ba muy tànn te yàq gi mu yàq itam dana ci amaat wàllam ci bàkkaaru yàq googe te loru àddina bii nga xam ne yàq gi jur na ko itam da ci bokkaale kon vote bi du lu woyof vote nit ki vote bi yore nii nekkut lu woyof mën na koo jural njariñul àddina mën na koo jural njariñul àllaaxira waaye mën na koo jural loru àddina mën na koo jural loru àllaaxira li ci mujj nag mooy nin ko waxee ne vote warugar la warugar la ci diine ci liñ jàpp warugaru diine nag amul kenn ku ko weesu ab jullit du weesoo def warugar ab jullit du weesoo def warugar donte du warugar wow dañ naan kenn ku nekk warugar la ci moom nin ko waxee léegi waaye warugar la ci mbooloo mépp kon nit mën na ko bañ a def waaye bu amee ñeneen ñu ko def rek baax na waaye nag ki ko def moo ëpp njariñ ki ko defut ki bokkut ci ñi tax warugar wi war ñépp sotti kooka moo ëpp mérite ki nga xam ne bokku ca moo ëpp mérite ki ca bokkut kon mooy bu vote jotee ki dem vote ji moo ëpp mérite ki vote wut moo ko ëpp mérite ndax def na luy tax li war ñépp sotti ka ca bokkut bu ñëpp defoon ne moom warugar bi war ñëpp du sotti te bu sottiwut ñëpp ay am bàkkaar kon moom day mel ni bokk na ca ñu jur bàkkaar bi kii ci kii dem def ko nag moom bokk na ci ñi teggi bakkaar bi ñi teggil ñëpp bàkkaar bokk na ci ki teggil ñépp ki bokk ci ñi teggil ñëpp bàkkaar nag yëmut ak ci nga xam ne bu ñëpp defoon ne moom daa bokk ci ñi teg ñëpp bàkkaar kon bokk ci élection bokk ci vote jot nga dem vote ji lu yëkkati nit la waaye du luy suufeel nit lu yëkkati nit la waaye du suufeel nit lu baax la te lu baax nag nit du ko weesu nit du weesu def lu baax danañ koy nettali ci kilifa yi Seydina Abu Bakar ba ci sëñ sëñ Maodo Moustapha kilifa yenn yi dañ nettali ñoom léeg-léeg ñu def loo xam ne lu baax la rek lu simple lu simple loo xam ne ñëpp ko war a mën a def waaye nit ñi dañ koy réyal ñu waaw yéen lu ngeen bëgg nag xanaa <laughs> ngeen bëgg duñ duñ jariñooti nga xam dañuy dem ba mujj kilifa daanaka du du defati lu baax daanaka daal loo xam ne lu simple la lu ñëpp war a def la waaye moom bu ko defee dañ koy réyal ba mel na lu rëy du dara ku nekk da ko war a def Seydina Bakar lu mel noonu amoon na ci moom Sëñ Mor Moussa lu mel noonu amoon na ci moom loolu tam mooy am ci lu mel ne vote am na ñooñ dañoo jàpp ne euh, bu ñu ko doon def daal day mel ne da leen di wàññi te dëgg-dëgg da leen di yëkkati sëñ Abdou Lahad anamu sëñ Abdou Lahad Ceerno Baay Ceerno baayam 2000 2000 boobu moom mi ngi bëgg am juróom-ñett fukki at te juróom-ñetti fukki at yi 2000 bokkut ak juróom-ñetti fukki at yi tey bokkuñ bi ñu voté 2000 damaa ne ci biir centre bi di di dox ba si ak ma gis ko mu doon kilifa guy bëgg am juróom-ñetti fukki gën naa ko naw lool ca loola gën naa ko caa naw lool ndax kooku xam na kilifa mooy lan 2012 hmm? waate na waaw man 2000 laa dajeeg moom 2012 moom am na juróom-ñeent fukki ak nangam ma dafa ko caa gën a naw am na ñoo xam ne dañ jàpp ne ñoom loolu weesu nañ ko weesu ñu def lu baax def lu baax kenn weesuwu ko te nag sax kilifa daa war doon royukaay ci lépp ci lépp lu baax kilifa daa war a doon royukaay ci lépp lu baax kon lépp lu baax loo xam ne mën a wax ne baaxut te kay kilifa danga caa war a nekk royukaay man sëñ Thierno wax dëgg yàlla Baye Thierno kero moom gën naa koo naw lool ndax li li muy firi te ma gis ñoo xam ne xaaju ñoo àgg ci moom te ñoom jàpp nañu daal yooyu xëy na dañ de ak du du mbirum kilifa daal te nag kilifa mënut a weesu def lu baax kilifa mënta weesu def lu baax sëriñ Abdullah loolu daal laa euh, jàppoon na mën nañu koo tënk ci waxtaan wi maa ngi jéggoolu ñëpp nag di euh, ñaan rek liñ fi wax lu ci jub yàlla defal nu jàppandal ban man koo jariñu lu ci dëng itam mu jéggal nu ko muy jéggalu ñëpp itam wasalaamaaleykum wa rahmatuhu wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud ci ni nga leerale tomb bi yaakaar naa ñi fi teew ñépp gën nañoo xam seen warugar ci tànn njiit rawatina njiitul réew leeral nga ci tomb yu am solo leeral nga ñu jëmmi politik ci boppam lan mooy wàccuwaayam ak lan mooy ab atteem ni ko waxee mooy su fekkente ne dañ cee jublu yéwénal mbirum askan wi kon bu boobaa ak jaamu yàlla la kon warteef lay doon loolu ñu bari war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax politique su fekkee dañ cee jublu yéwénal mbirum askan wi mbirum nit ñi kon bu boobaa ak jaamu yàlla lay doon di lu am solo waaye itam leeral nga ñu jëmmi tànn ci boppam muy vot vot ab atteem te wax nga ne lu war la ni nga ko waxee ci résumé bi lu war la mooy fardu kifaaya su ca ñenn ña demee xëy na mën naa wàcc mën naa yóbbaale ñu fi des waaye nag ku nekk daa war a jàpp ne ci ñi ñi yóbbaale ñi ci des la lañ war a bokk waruñoo jàpp ne rek fardu kifaaya la man mën na maa bañ a dem waaye war ngaa jàpp ne sa tànn googu ngay tànn yow ci sa bopp yaa war a tànn njiitu réew mi di lu am solo loo xam ne gën nga koo leeral ci biir waxtaan wi waaye li ci gën a amatee solo mooy nag warteef yi nga xam ne war na kiy tànn mu xool ko ci ki muy tànn la ca njëkk mooy mu jiital ci dëggu dëggu dëggu ci tànn bi maanaam na tànn rekk te yàlla tax bu mu tànn ci ak parparloo wala ñoo bokk tarixa ñoo bokk sëriñ ñoo bokk daayira ñoo bokk association wala moo may jariñ nàngam waaye da koo war a tànn te yàlla tax jàpp ni kii moo gën ci askan wi ba ca topp mooy jàpp itam ne kii moo mën a jariñ askan wi ci tànn ji loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax leer na ko ci biir waxtaan wi waaye itam mu am ay jikko yoo xam ne ay melokaan yoo xam ne ñuy wut bu ñu taxawee melokaan yooyu nattukaay yooyu lañu war a xool ci ñoom lañu war a xool ci ñoom ba ci njëkk wax nga ko mooy ak xam ak xam comme ni nga ko leeral ne du xam-xam waaye ak xam ndax amul xam-xam boo xam ne dañ naan ku ko am mën naa jiite réew mi waaye ak xam ba ca topp mooy wóor ku wóorut kenn du ko dénk ku wóorut kenn du ko dénk beneen bi mooy ak man man man mën a yor mën a yor ku ku ku woyof walla ku nooy kenn du ko dénk ki ñuy dénk daa war a doon koo xam ne bu laajee jubbanti mu jubbanti bu laajee saytu mu saytu mu wax waaye du nekkut kàttanuk yaram dong waaye kàttanuk mën a mën a mën a jiite mën a yor loolu di lu am solo loo xam ne euh, leeral nga ko ci biir waxtaan wi muy waxtaan woo xam ne yaakaar naa ñi fi toog ñëpp jariñu nañ ci njariñ lu am solo rawatina fii ñu toll dëgmal ay tànneef yoo xam ne askanu Sénégal dañoo war a tànn njiitu réew looloo sababoon ñu tànn tomb bii bëgg cee fàttalante bëgg itam ku nekk xam responsabilité bi nga am ci tànn sa njiitu réew ak boo ca àggee noo war a tànne ak koo war a tànn lii moo doonoon solo su waxtaan wi ñu ngi sant bu baax a baax Serigne Cheikhouna ci jotal gi waxtaan dana leer leeraay woo xam ne jekki di ci tënk ka dolli leneen da koy gën a lëndëmal mboolem ñi nga xam ne doon nañu topp jàpp naa ne tey jariñu nañ ci waxtaan wi njariñ lu ama am solo euh, bu ko defee ñu fàttali leen rek ne waxtaan yi nga xam ne ñi ngi koy def fii ci jumaa ji daayira muxaddamatul xidma di ko def mënees na koo topp ci organes yu baree bari bokk na ca yi nga xam ne daayira bi moo ko moom muy MK TV wala GMT TV wala mosquée touba point org di site internet bi waaye itam di dees na ko mën a topp itam ci télévision Lamp Fall TV di ko topp itam ci rajo Jant bi FM di ko topp itam ci site internet bu ñuy wax Timis TV waaye man koo seetaanaat di ko topp itam ci télévision bii ñuy wax ak sama samadiyya moom itam daf koy jàllale bu ko defee mbooleem organe de presse yooyu nga xam ne ñu ngi jàllale waxtaan yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di fàttali jataayub suba bi ñu ngi war a waxtaane jàngat xasiida gii ñuy wax matt matlabul fawzayni matlabul fawzayni di xasiida googu sëriñ Touba taalif moom lañu war a jàngat suba war cee ànd ak sëriñ Maam Moor am Amdi moom lañ ci war a àndal ci jataay bi ñuy fàtte itam ne képp koo xam ne am na ab laaj bu jëm ci fiq ci fatawaayi walla laaj bu mën a doon rek mën na ko yónnee ci numéro boobu ñu joxe woon muy numéro whatsapp bi 78 689 28 28 78 689 28 28 bu fekkee ci jataay bi la nekk itam am na ay ndaw yu fi taxaw yor ay feuille bu ko laajee ñu jox ko mu bind laaj bi jébbal ko commission culturelle bi nga xamante ni ñoom ñooy dajale laaj yooyu ngir war cee tontu kon ñu ngi yëkkati fii jataay bi di sant mboolem ñi ñu doon topp ci biir réew mi ak bitim réew di leen jox ndaje suba incha allah ci ginnaaw tàkkusaan ci jataay bu am solo boobu ñu leen wax muy jàngat xasidat matlabul fawzayni te war cee ànd ak sëriñ Mamoor Mbàkke Amdi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu